li tubab nan investigation man mom lay def avant may wax ci sujet dugg naa ci profilam dugg ci ay commentaiream. la majeure partie ci abonné ni koy suivre diko dolel, diko di ko épauler naan ko s'il vous plaît je t'adore fais-moi une vidéo fais-la avec le son de Wally fais-la avec le son de Youssou Ndour le son de Viviane ñoo ñep ay sénégalais lañu ñi xamné ne la taxuñ may wax de déedéet ñi nga xamné ñoko def exprès ñom xam nañ ne góor la di matin midi soir diko nan ko fais-moi une vidéo je ma belle taxuñ mais dafa am ñu internet bi samay frère lañ ak samay sœur innocent ak tout ce qui brille c'est de l'or yaakar nañ ne képp ku rek loin de ça le monde est l'envers maintenant ñi tégg ni épilé wu ba mu monter def la majeure partie ci réseaux sociaux ay yor ay bangalanga yu yoore ñooy def lii léegi nag man mënuma comprendre nga affiché indo dawal kaboy sénégalais yéen yéen yéen yéen rusu leen amu leen rusukaay ak ñi ma ko sañ a wax vous n'êtes pas honte nga dugg ci commentaire kii fekk fa junney doomu aadama yoo xam ne ñëpp ay sénégalais lañ xanaa du yéen yéen ay taxaw di défendre ne ne buggu leen borom ñaari tur yi senegal buggu leen seeni doom nekk ay ñaari tur Sénégal ku ko fi doon ray leen ko sotti leen ko essence taal leen ko yéen yéen a koy bañ seen réew maanaam yéen a dem ci réewu jàmbur nii di ko épaulé dooleel ko abonné ko mu nekk ci ay deux cent et quelques mille abonnés ngeen di ko ñaan ay vidéo je t'adore kii borom commentaire bii ma afisi nii rek sénégalaise la kii kii nee na ko je t'adore fais-moi une vidéo bu njëkk defoon naa ci vidéo ñëw sensibiliser ci xam nga lu ñu def dañoo signaler vidéo bi TikTok ralentir vidéo bi parce que ñoom ku ne xam nañ dañoo ànd ak saytaane ñoom ay borom doole lañ lu ñu songu daan ko <laughs> ku ne xam na loolu. vidéo bi TikTok tëju ko mais da koo ralentir ni mu waroon a demee au viral dans les passe pour toi demeewul ko dans les passe pour que nee nañ ma da wax ci nit. te ki nga wax d'accordul kon cela veut dire moom ci boppam am na gàngoor goo xam ne bi ñu gisee sama vidéo signalé nañu ko heureusement ba TikTok tëju ko. bu n'êtes pas honte amu leen rusukaay maanaam yéen yéen ni ngeen di xasee xale yi nga xam ne maanaam kuy dox doxinu jigéen sax wala muy wax waxuñu jigéen wala mu def benn acte bu bu féminine tuuti rek ni ngeen di dalee ci kawam. ba pare ngeen ëlbatiku yéen ci réseaux sociaux yi taxaw jàppale kii nga xam ne moom waxuma la def acte bu jigéene mais moom day teg greffage moom moom di sil di épilé wu di sol ay string non vraiment man j'ai pas les man sénégalais yi lan lañ bëgg ñoom. ñoom dañuy taal keccax yàq jën kay dugg ci bërigo diwtiir génn weex tàll vraiment ay saytaane ngeen vraiment ay faapari pañ ngeen vraiment ay vraiment.